ñi ngi sant ñëpp di sant suñu mbokk journaliste yëpp yi fi teew di jéggalu ci tarde bi di sant tamit suñu xarit ak suñu wëllëre yi nga xam ni tey dañoo ñëw teew fii di wax ni que fii réew mi tollu wax dëgg yàlla am nañ sax kersa di leen woo di leen wax ci leneen lu dul li nga xam ni tey moo dajale askan bi yëpp doon yitte askan bi yëpp doon mbégte réew mi yëpp li ci ëpp ci réew mi ñi bëgg réew mi boobu ñi ngi xool ndamu réew mi di xool euh, xëy na sax jafe-jafe réew mi mais tey ñun ñëpp ñu dajaloo di jàppale ñaar fukki sénégalais ak juróom-benn yu dem pour taxawal senegal ci coupe du monde tey wax ji yëpp ci loolu la waroon a nekk ñu boole suñ xol boole suñ xalaat boole suñ mën-mën ñii ñaan ñaan ñi def leneen. pour que ñooñu am ndam pour réew mi am ndam yàlla na leen yàlla may ndam donc kerse la ci ñun ñu tey ñu ñëw toog di fi wax yeneen wax yu jëmul ci loolu waaye tey du mambay ministre moo fi toog du mambay membre gouvernement moo fi toog du mambay membre APR moo fi toog du mambay membre Benno Bokk Yaakaar moo fi toog mambay ñaar simple citoyen sénégalais moo fi toog ndax umpul kenn ci wax yi nga xam ni waa coalition Yewwi Askan Wi dañ koy wax démb Ousmane Sonko tudd na ma ci point de presse am nee na am na rapportu IGE muy inspection général d'État mooy saytukat yi nga xam ni ñoom la yoon may ñuy saytu nee na Ousmane Sonko nee na yor na rapport boobu boo xam ne dañu ma cee tudd ci luubal ci programme domaine agricole Nenek sax ku doye di la nenek na tamit bariwuma xam-xam waye damay fatali rek man de ba tuuma yi joge ci sama ndot bëgg setal sama der ci niñ ma yar ci lima ma gëm ak ci ñima ma sama njabot ak ni ma ak sama mbokk ni ak ni ma sama wa kër ma ni ndombal tànk li nga xam ne njiitu réew mi daf ma koo dénkoon pour que ñu dem ma setal sama der du ma ni guléet mu am fi de waaye néew na ñu koy def Prodac boobu muy wax dama leen fàttali moom mi bëgg a jiite réew waroon naa sax jéem a xam am réew nan lay doxe parce que fa nekkoon ci jamono Jean Pierre Senghor la tuddoon décret moo ko nommé keneen ki ci toppoon Mamina Camara la tudd décret moo ko nommé comme ni ma décret nommé ci sama digganteeg ñoom mu am lu tudd conseil de surveillance man ma nekk ministre de tutelle ministre de tutelle mooy lépp lu wàllu yor wàllu technicité bi donc buñ toppee yoonu ni nguur di doxe man aw mënumaa laale mënumaa xam sama signature du génne xaalis du ma fay ñu ni dañ ma tuumal ma nangu tek li ma yor parce que wóor na ma ci sama biir xol ak sama digënté ak yalla sama borom ni que li ñuy wax du dëgg du dëgg parce que bu amone xaalis bobu ñu wax ni nga mako ko kon tay projet yi du taxaw du dëgg parce que luñ la denkul mëno ko jël du dëgg parce que ni yoon teggo mënuma ci egg waaye nag moom mi nga xam ni nee na dañoo doye di ca que suñu ñun suñu njàng doyul moom de daa bëgg a jiite am réew waroon naa fexe nag ba ni am réew di doxe mu xam ko waaye du guléet du guléet Ousmane Sonko di wax lu dul dëgg waaye bii yoon nag ah du deme nam daan deme de li olof di wax naan egg na ci daj dellu wallaahi egg na ci daj dellu bi daj dëpp parce que nag porte naa ko plainte bum ni dañ ko complot bum ni dañ ko day woote mortel komba bum ni nañ ko gunge moo taxaw ci kanamu askanu Sénégal yépp mu ni leen yor na rapport bu IGE boo xam ne daf ma tuumaal ci wàllu luubal porte naa ko plainte nag dañuy dem ca yoon laajuma ko lenn bëgguma mu expliquer bëgguma mu def dara bu yoree rapport bi na ko publier sax na leen ko jox yéen journalistes yi avant ñuy dem ci yoon bu buñ demee ci yoon nag ca génnewu demee ci yoon nag ca génnewu ko parce que dinañ ko déglu dinañ ma déglu dinañ ko déglu dinañ ma déglu balaa muy dem bu fekkee lu leer rek la bëgg na génne sax rapport bi jox leen ko waye bu mu indi ñaari feuy ni diwoo bind li rapport ñun ñëpp xam nañ nan la rapport bi mel Sénégal ak lu ñin ñi ñak xam ñak xam ñak xam xam nañ rapport parce que ci seen wax sax ñu joom ñi ci ëpp ci ñom dañoo defe ne ni que man directeur product ana wa Sénégal demb ci article bi ngeen bind dañu bind sax l'ancien DG du product man musuma nek directeur product musuma nekk président conseil d' de surveillance Prodac ministre de tutelle Prodac laa nekkoon dafa di man boo ma dénkee da ma sas nangu naa bépp jubadi bu ci am man sama bopp ma layoo ko waaye jël tuumal ma man defuma ko moom nag tuumal na ma man bañ ma tuumalee tekki naa samay ndomba tànk nangu naa dem donte amoon naa kiir laay yoon Mani ne man pas parce que bo ministre am nga privilège de juridiction ci say exercice man dem na sax bani que mais nangu jakarlo ak yoon sama pour ñu wax ndax man ma jël bu man ma jël na yoon dal sama kaw bu jëluma tamit ne jëluma pas bañ ko limu def ni man député kiir laay boobu laay laaj moom bañ ko tuumalaa li mu njëkk a def mooy dajale réewu Sénégal yépp ni dañ maa kompaloo dañ maa bëgg a yóbbu ci yoon rey ma moom bañ ko tuumalee daf ni ne ndawu Sénégal yëpp wàcc ñu taal dëkk bi parce que dañ koo war a xeexal parce que moom dafa dem sàkku benn jigéen ci lu dul coobareen ak ci ay activité contre nature bëgguma egg ci wax ci donc bu ma bëggee tëkkalee ak boppam wax dëgg yàlla du ma du ma nawle man de luñ ma tuumal nangu naa dem setal sama der moom fii ñu toll nii tuflin ñu setal la ñu xool ndax li ñu man yiw bi ñu fekk ci soxna si yaa ko moom wala moomoo mu ne du tufli jur jox ñu mu ne du ko def lambal kaas jox ñu mu ne du ko def yéyal ci ngoom jox ñu mu ni du ko def jox ñu sax sa benn karaw mu ne du ko def man bañ ma tuumalee man nangu woon naa dem léegi nag moom nee na li ñëpp doon seet ñu condamné ci ay journaliste man xëy na dama am naa kersa di bàqoo naan tëj naa kii tëj naa kii mais am na ay télé Walfadjri groupe bi man ak ñom jappanante nañ ci loolu journal laas jàppante nañ ci loolu ak benen journaliste ak benen journaliste ñu dem tribunal ma gagné parce que dañoo déggone nit ñi di wax naan rapport rapport rapport rapport bi ko incrimé ñu bind ñu dem ci yoon ñu laaj leen rapport bi produire ñu rapport bi légui nak comme ko Ousmane Sonko mom néna li fi sen lepp dajalé nako moko wax de dem loolu la wax néna gaay xamu ñu nek man rapport yépp am ko denc naa ko léegi ay problème mu toog waaye léegi man rapport IGE bi muy wax xam nga rapport IGE sax dañ koy déclassifier pour mu mën ko yor mais maa ngi giñ ci alxuraan ni que même bu ñu ko déclassifié wul man ci sama li seq ak président Macky Sall bu ko Ousmane Sonko joxe rapport bi maa ngi giñ ci li ma seq ak président Macky Sall man dinaa taxaw ni ko rapport bii nii kenn du ci topp Ousmane Sonko parce que daf koo génne maa ngi koy giñ ci alxuraan donc bu ko amee comme ni mu waxee ni que yoon dem na xaw ma te juge ba déposé rapport xaw ma lan rapport bu IGE bu incriminé Mame Mbaye Niang Ousmane Sonko mën na ko génne ca balaa mu koy génne na leen ko jox ngeen tas ko nañu bàyyi naxante bi nañu bàyyi sosalante bi nañu bàyyi. xëccoo ci lu dul dëgg comme que nag day indi tuuma man lay tuumaal maa ngi leen di wax ni dinañ dem ci dem nañ ci yoon buñ ko woowee bum ni dañ koo complot bum ni procureur bi fii ñu senegal ñëpp bokkoon ay école école bi mu génn ay moromam fa nekkoon ñu ko fa raw moom ndaare la jëloon non baax na ñuy leeral accusé wu ko bu fekkee jëlul ndaare na def tout cas yaa xam mbay toog na ci télé bi nii promotion bi muy dugg bi muy dugg nee na moo jël paie mais bi muy génn moo jël ndaare te li tax mu jël ndaare am na ku mu bokkal classe Cheikh Issa Sène yéen ñëpp gis ngeen ko wax na li tax mu jël ndaare parce que problème yu mel ni ay problème mu Adji Sarr yi la fa amoon man président nommé na man juróom-ñaari yoon juróom-ñaari décret décret balaa nga koo am dañ lay saytu ci wàllu jikko ci wàllu nekkin ak ci wàllu doxalin buñ ci gisee benn kat kat président mënul la defar décret moom saytu boobu tey buñ ko ko defoon yéen ak man ak ñi toog ci salle bi yépp xam nañ ni mënuñu koo nommer donc bu ñu naxante coow lu nekk dina ko fi xëcc li muy fexe lépp mooy indi fi wax pour ñu fàtte procès bi li muy def lépp pour ñu jàpp ko ci leneen ci lii moom kenn du ko ci jàpp waaye nag dinañ ko wax mu indi rapport ci liñ ko war a jàpp bu jotee dinañ ko jàpp te jàpp naa ni jot na képp kuy sénégalais nga taxaw nag parce que yoon dafa war a am fii amul benn sénégalais buñ fi accusé de viol ngay dem di comparaître libre Ben Sénégalais bu ñu fi accusé de viol ngay dem jugement du comparaître libre moom dañ ne ko tuflin ñu setal la muy defu ko donc a eu leen di jéem a parce que dafa bëgg fooy xelu nit ñi nit ñi xam nañ buy dem procès warul libre parce que moom ci boppam Bam Néké nekkee député dafa voter loi bi munoo toog ñu ni dañuy criminaliser viol assemblée nationale wax la

ma teg projecteur Ousmane Sonko moo def lii Ousmane Sonko moo def lii Ousmane Sonko moo def lii ku ci nekk balaa ngay génn di nga gis firnde bi wala ma yónnee la ko ci sa portable. ci loolu laa bëggoon ñu wax ci loolu laa bëggoon ñu discuter bu fekkee ci li ma wax ci li ma wax. amna kenn ku ci bëgg a laaj dara ñu jël quatre questions yéwé ko parce que ñi ñi dañu war a dem defi seen rédaction c'est bon c'est bon c'est bon y a pas de question hein question liée à ça Hein? Hein? oui. oui. s'il vous plaît s'il vous plaît. voilà merci madame ci question premier ministre Amadou Ba y une ngi fàttaliku li mu wax histoire du produit. je vous dis que produirez le rapport à après le fait ma ñëw ci mais ma histoire du Prodac six mois après l'exercice budgétaire 2015 dama jox avant de signer contrat avec Green 2000 dama jot les travailleurs bu nek product bu fay liggéey bu wax waxi grille salariale ma envoyé demande d'explication que fa nekkoon directeur madame coordonnateur Jean-Pierre Senghor Nous arrivons après nous avons une demande d'explication Nous dem ba demande d'explication Nous avons inspection interne ministre de la jeunesse ni nous devons auditer Prodac audite produit, nous un rapport interne bi un rapport interne bi ma le ministre des finances Amadou Ba audité la partie technique service partie financière parce que nous avons une factures il faut que procédure loolu mooy rapport yi premier ministre di wax tey jii nii man maa bind je pense que dégg nga ni mu ni mambay moomu bind ni ma kaay audité dëgg la te bi koy bind rapport interne bi ñu ci Prodac moo ma histoire ba na juróom ñeenti ñeenti weer après loolu defe naa yéen ñii yéen a bindoon ni que Mame Mbaye Niang obtient la tête de Jean-Pierre Senghor am déet yéen Seneweb yéen a bindoo article donc man bi ma amee document yooyu li ma yoon may comme que tutelle la ma bind premier ministre ñu jox ko président ñu jële ko foofu yóbbu ko fekk ne andi fa Mamina Camara Mamina Daffé du moins loolu la de mais comme que Ousmane Sonko moom nee na yor na rapport yëpp nañ xaar rapport IGE bi mais bu leen kenn yóbbu nag ci ay njaaxaa njaax parce que ku ci jàngul bay ba nga contacter auditeur mu wax la rapport nan lay mel am ñun ñëpp xam nañu rapport na lay mel bu kenn dem bind inter bind sa feuille quatre feuille rek ñëw daan ni leen nii oui lii mo lii lii mooy rapport bi dugal Ousmane Sonko rapport nit da koy signé ñu bind turam mu am tampon nit ki nekk wala donc bu leen kenn dugal ci ay non ay rapport baa ngi nii rapport moom ñu ñëpp xam nañ lañu lay am dañuy entendre ñëpp mu am ay voix contradictoires ki ñi accusé ñu ne ko accusé nañ le li ci rapport bi mu ni ñu ni ki ñu accusé li li la tontu après euh, auditeur bi def ki après ñu xor situer responsabilité ku ci nekk ñu wax la fañ lay japp léegi Ousmane Sonko nak mom nee am na rapport IGE bu mu duggal et rapport bobu lañ bëgg mu génne ma ngi gën ci alcorane ni que rapport bobu amul mais comme que moom nee na am na ko. et ay am na ay nit fépp li président di ndekkee sax xam na ko ah xëy na bu ñu ko woowee dinañu jox rapport boobu heure bu ñu ko heure bu joxee rapport boobu nag man nangu naa lépp lu yoon wax ci man ñu teg ma ko nangu naa jour ba muy indi rapport bi man bu ma ko demee fekki foofu pour confrontation man nangu naa ma bañ a ñibbi sama kër bu boobaa ñu xam ni man maa def waaye tamit buñ joxe bu indiwul rapport ah boobaa moom yëf yi beneen mbir lay nekk et mu ñu def comme ni mu defoon ci 94 milliards yi taxaw ni yor naa ay firnde am naa lii ñu woo yor naa virement yi ñu woo la nga ni déedéet bi yoon mënul nekk man ak moom ci yoon par force et bu mu wax kenn ni dañ ko complot du ministre moo ko porté plainte du keneen sénégalais bu mu toog tudd ci point de presse tudd turam ni moom yor na rapport IGE na ñëw.

ah parce que Birahim bindul ne que Mambay am na rapport bu ko épinglé Birahim trouvé na ay technique am wax wax wax wax ba doo ko mën a toppee dara Birahim bindul livre am boobu bindul ci loolu de Birahim Seck livre am boobu bindul ci ni ko Mambay ñaan dafa sàcc benn 9 milliards moom daf ni am na benn scandale 29 milliards après commencé dugg ci ay procédure naan ay xawma lan ay notification ay xawma lan loolu c'est des arguments techniques